bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi wakafa ala ibadihi alladina stafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh noo bokk yi nuy topp ak fu ñu mën dina ci si di leen siyaare am nag lu nu bëgg leeral fii war ngeen a jaaxle sax bu ngeen xamee ne li ñuy leeral li mu jàllee ak léegi ëpp na fukki at ak juróom waaye nag li waral muy leeral bi ñu ko yëgee dafa yàggul daanaka ci ñaari weer rek lay toll li ñuy leeral nag moo di ne ci 1999 mbootaay gi boole woon taalibe yi nekk Amérique te tudd Mika dañoo sàkku woon ci man bëgg ma dem fa nekk seen iliman bañ ma ko yëgalee itam ma jox leen sama kàddu ba ñu toogee ab diir am ndaw lu fa jóge ñëw ci réew mi ñoom ñu ne ma naa dajeek moom ci sëriñ murtala ngir mu joxe ci ndigal ba mu ñëwee ñu jàpp bis daje fa sëriñ murtala ci këram gii ci ndaam daaru salaam daaru salaam ndaam ñu fekk ko fi kooka leeralal ko ñoom lañu bëgg ak nañu ko bëgge sëriñ murtala ànd ca ñoom neleen kon nañ ko dox ba mu sottee ñoom nañ waxoon ne ca lañ bëgg mu sottee na loola ci mujjub lay doon ba ñu demee ba 2000 ca weer yu njëkk ya mbokk mu nekk foofu te mën na maa wax ne moom moo doonoon cosaanul ñu sàkku ci man ma ñëw fa ngir nekk fa ilimaan kooka xelal ma ne ma boo mënoon a ñëw ci ngan gi di ñëw muy ngan gi fa suñu watu daan def at mu nekk te daan doon ci weeru juillet mu ne ma bu ma ci mënoon a ñëw bu ko defee maanaam gisee ak ña fa nekk waxtaan ak ñoom xamante ñoom xam béréb ba itam boobu demee ba mbir ñu sotti bu ma ñëwee du doon gan tàmbali am njàng ma lu xalaat boobee ba tax ca at moomu ma ñaan visa lu jiitu Serigne Mourtada dem ma dem jiitu ko fa tuuti mu fekk ma fa ma nekk fa moom ca ngan ga def loole itam jokkoog ñoom waxtaan ak ñoom xam ca béréb ba itam xam na béréb ba bindoo am na mel ak yooyu yëpp daal ba ma fay joge yit ma njiit ya ma xamal len ken ma ngi delu way nak dama delu rek di len deglu ndax lool mo ci sama wal joxana sama kaddu tok deglu len mo ci sama wal dama delu nak ci rew mo di len deglu sa bu ngeen mané na ñew rek ma mëna ñew ñëw bi ma ñu teg ca lu mag fukki weer ma xam la ne yoon ba ma fa demee ñaari weer laa fa am te mooy wenn yoon tam bu ma mës a dem foofu ba ma dellusee ba teg ci lu mag fukki weer mbir mi jaar weneen yoon ba mu jaaree weneen yoon it ba bisu tey bii amul kuma ku mas wax ak man ne ma lii moo tax mu jaar ci weneen yoon ba bisub tey bii itam ñi ma ne woon maa ngi toog di leen nekk ba bisub tey bi waxaatuñ ma dara dëgg la ma it nag laajuma ci kenn dara ba bisub tey bi laajuma kenn ne ko mbir mi fi mu jaaraat ko waral laajuma ko kenn kon la ma ca def daal mooy ba sëriñ Mountakha ñibbisee ca at moomee te mooy 2001 uh, ba mu ñibbisee nee naa suñu plan moom naa teel dem ci moom leeralal ko sama taxawaay ba xam ne lu xew ci mbir mi ëllëg bu bokkut la mu joxe woon mu xam ne man duma ci dara ndax kàddu rek laa am joxe ko li ma dese mooy toog di dégloo te loola ci laa nekk ba nëgëni kàddu ga ma joxoon tam ci laa nekk ba nëgëni loola def naa ko dem leer la ko sëriñ moom jàppoon naa ne tam loolu na ba ci weeru ut wii di mu am mbokk mu nekk fii fi Touba jóge woon fi demoon tukki états bis mu woo ma téléphone nuy waxtaan ba mu àgg ci ne am na bërëb bu mu dem dégg fa ñuy wax ba naan li tee le Serigne Mourtada bëggoon wala la mu àndoon ndax ñoom ñoo ko bëggoon la mu àndoon mooy seexu naa ñëw nekk fa ilimaan la tee mu sotti mooy seexu naa da doon fayu lu gaañu àttanul mu jaaxal ma lool ndax baatu fayu ak fay yàlla laa ko mos a dégg ñu du ko ci mbir moomu ndax mi jiite woon mbooloo ma te mooy Mika ci kenn ku ma a wax ak man ba tudd baatu fay man nii tam mosuma cee wax ak kenn ba tudd baatu fay kon baatu fay mosuñ koo tudd ci suñ diggante bañ naan la ma doon fay moom lañ attanu bi ma déggee loolu nag laa ne kon xëy na laaj na nag ma leeral ma leer rek bañ xam mu ne mbir yi demee te bu fekkoon ne mbirum pay la mooy bu doon mbirum xaalis kon moo ma yitteel kon du ma bàyyi ab liggéey boobu ambassade bu Arabie Saoudite ñoo ma ko bëggoon sant seen ambassade ba nekk Cameroun mooy Arabie Saoudite ñoo bëggoon ma dem Cameroun ke seen ambassade ba nekkal leen fa la ñuy tuddee te ñu jiite mika muy ñu jiite mbooloo ma ci jamono yooyu ca foofu ca New York ñoom xam nañ ne foofee fa New York ca kama dalaloon di mbokk magasin ba mu am fax ba fa nekk xam nañ ne foofee laa binde bataaxel bi ma jégguloo waa Arabie Saoudite ne kat am na liggéeyu lislaam bu sàkku ci man boo xam ne féete ca laa jàpp ne mooy sama warugar kon ngeen jéggal ma ci loolu ngeen sàkk woon ci man te boobu dañ ma taxaw foofu lañ ma yónnee fax ne ma dañoo bëgg ma daal di ñëw ñoom waa Arabie Saoudite ma daal di dem ci seen ambassade ba ca yaamum day ca Cameroun foofee ca faxu mbokk mi ma dalaloon fa laa binde tontu ne leen kat nañ ma jéggal ndax liggéey bu lislaam bi ñu sàkk ci man loola ñu jiite woon ñi ko xam nañ ko am na ñeneen tam ñu ko xam ku xaalis yittee loon ba ngay laaj ak pay kon doo bàyyi loola ngir liggéey bii kon mbirum pay mosuñ ko cee tudd mosuñ koo tudd man ñoom it mosuñ koo tudd nii daal mbir mi demee loolu rek laa bëggoon a leeral ngir képp koo xam ne mas na cee dara bu ci degge leneen nit mo xamne li ci am mom li la man dal sama kaddu la amon bañ ko sakko ñom man nangul len ko mais nanu and daje ci serigne Murtada ngir lacc ci ndigal nu and dem fa serigne bi and ca ñom ñu wax ne anam sangam lañ ko bëgg jaar bam sorti sotti bi and ca lolo lama ca da sama walu mooy toog di déglu li am nag mooy ba bisub tey bii kenn waxaatuma ci dara kenn neewuma lanu diggante woon kat fii la mujj lii tax mu mujj fii ba bisub tey bii bu fekkee daal am naa ci wàll duñ ko may tudde wàll moo di ne wëlbatik yi ngir mi wëlbatiku bañ koy fexe lu néew néew lu mat weer lu jiitu ñu koy tàmbalee sottal yëgoon naa ko waaye nag jéem woon dara ci fànk loolu daal bu dee njuumte la moom xëy na sama njuumte la ci mbir mi li tax jéem dara ci fànk ko it mooy dama jàpp ne doon sama wàll ndax lool sàkk woo ko woon dañ ko sàkku ci yow nga nangul ko ñu ko sàkkoon ci yow la cay sa wàll mooy nag di leen déglu di leen déglu lu ca xewaat ëllëg itam yow foogu ma ne yaa ko war a lijjanti bu fekk demoo ba tàmbali faa def lañ lay doye daal yow dégloo ngay def bañ ne la ñëwal ba ñëw boo ñëw ba tàmbulee def nag lañ lay doye xëy na bu ci amee lu la ñu jëm ko lijjanti lii daal laa ne woon xëy na leeral ko duwaan ñi dara ndax jàpp moon ne war naa ci aajoo leeral benn yoon ginnaaw bu ma ci leeralee sëriñ Murtada maa ngi jégalu ñëpp nag wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu